aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ni seetaante di nu déglu ci sunu émission bi ñuy wax madinatu ilmi te ñu koy amale ci sunu site bi ñuy wax 24 actu ñu dellusiwaat ci jataay bi ginnaaw buñ leen ndokkalee nag yéen ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci bitim réew di ko waxtaan waxtaani ak jubbanti yi nga xam ne yéen a ngi nu koy def ñu ngi leen di ñaanal yàlla defal leen tawfiq ak sutura di siyaara mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun ci jataay bi yàlla bu jataay bi doon jataayu neen leen ciy dégg yàlla na am njariñ liy jóge ci ñun it yàlla nañ ci jariñu di ñaanal bu baax a baax soxna maam xari Mbàkke Murtada di ñaan yàlla sàmm ko te wéral ko di siyaara bu baax soxna moomi Kebe di ko ñaanal fan nu gudd ak wér moom Alaaji Njuga Kebe di ñaan yàlla defal ko sutura ak teraanga te yàlla may ko fanu gudd lool di mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ni topp tey nag ñu bëgg a dellusi ci jullit bi bëgg gi nga xam ne war na koo bëgg yonante bi sallallahu alayhi wa ak saxaaba yi ni nga xam ne ñoom nan lañ bëggee woon yonante bi loolu moom la ñuy waxtaanee lu gàtt gàtt ndax day waru gar ci jullit bi ndax yàlla mi nga xam ne moo bind <coughs> moo jël yonante bi teg ko ci sunu kaw. ci ay daraja ak melo ak jikko tagg ko ci côté bu nekk na yàlla sunu boroom tagg ko ci wax na yonent bi salaahu salaam na ngeen ko topp bi mu waxee boppam ñu topp ko ba noppi dafa wax na atiixu laahu wa atiixu rasul ginnaaw bu nu takkee yàlla ba noppi dañuy topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam topp yonent bi ak sopp ko nag mooy ñu topp ay ndigalam bëgg yonent bi sallallahu wa sallam nag li ci jëttu mooy xam ko jëm a xam li doon dund li mu doon dund ak li ko yàlla yónni woon boo xamee li yonante bi doon dund ba noppi teg ca sa tànk mooy bëgg nga yonante bi mooy atiixu llaah wa sunu borom nag tagg ko ci jikko yu bari wax ko ne wa laa la la xuluxal asim am na borom xam-xam yi wax ne tagg mooy wi gën a rëy waaye loolu njuumte la danoo wax ne sunu borom boobu daf ko tagg ci ay jikko wax ne am na jikko yu rafet ak melowu rafet waaye wa in tax taxtadoo loolu mooy tagg bi gën a màgg kii kat su ngeen ko toppee di ngeen gindeeku loolu mooy tagg bi gën a màgg su ngeen ko toppee di ngeen gindeeku bëgg yonante bi nag xol bu mu boof la koy firndeel mooy day fee day boof ca xol ba waaye feeñ ci cër yi mooy bëgg naa yàlla bëgg naa yonante bi te awoo ci ndigal yonante bi loolu du bëgg ko waaye bëgg naa yonante bi mooy nga topp sunnaam maanaam yow mi ni natt ci bëgg yonante bi yow mi ne da ngaa sopp yonante bi salaa salaam li ñuy natt ci sa bëgg yonante bi ak li tax ñu dëggal ko mooy gis nga roy ay sunnaam waaye boo ne bëgg naa yonante ba noppi te lépp lu yonante bi diglu woon gisuñu la nga xëy ca gisuñu la nga gont ca kon loolu day mel ni bëggoo yonante lu mu tere woon lu nekk nag yaa ngi ca biir loolu day wane ne bëggoo yonante bi mandarga bëgg yonante bi daal day boofu ci xol bi ñëpp di ko yëg waaye mu feeñ ci cër yi bu feeñee ci cër yi feeñ ci jëf ji loolu mooy bëgg yonent bi salaa salaam Seydina Omar de yonent bi salaa salaam da ko wax ne ko Omar yéen ñi ci jullit yi kenn ci yéen ak ngëmam du mat lu dul dama ko gënal ndeyam gënal ko baayam gënal ko boppam Seydina Omar ci xel mu rëy mi mu ne ko yaa ma gënal sama ndey gënal ma sama baay ba mu des sama bopp yonent bi ne ko Omar des na sa ngëm du mat fee gënaluma la sa ndey gënal la sa baay gënal sa Seydina Omar wëlbati xelam ne ko de fii may wax ak yow ci jamono bi ñu toll yaa ma gënal sama ndey gënal ma sama baay gënal ma sama bopp mu ne ko Omar sa ngëm mat na kon bëgg yonante bi sallallahu alayhi wasallam noonu lay mel ñoom nag dañoo bëgg yonante bi jaayante moom inna allaha astara minal muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannati seen bëgg yàlla ak bëgg yonante bi lépp mooy ñoom na lislaam taxaw fitti wala ñoom ñu dee dem àjjana ñaari objectif yi lan amoon saxaba yi ñaari yi mooy lislaam taxaw fitti wala ñoom ñu dee ci ab xare dem àjjana loolu mooy seen mbir xam ngeen ne ay fitt yu nekk fii na natt ko ay fitt ni mel ak i xeej ay jaasi nga mën a jàkkaarloog moom di xeex koy xeexal ndigalal yonent bi sallallahu alayhi ngir lislaam taxaw yonante bi salaa salaam li xare bi bari bari ba ci badar uxóot xare yooyu yëpp jullit yi seen xel yi mu doon nekk mooy ndax yonent bi dara ndax mbaa bant fokk ko ndax mbaa bant xusiwu ko waaye ñoom seen bopp xalaatuñ ko ndax ñoom dee moom ñu dee léegi ak dee suba ñoo yem ci ñoom ñoom na lislaam fitti ndax xam na ne ñoom suñu dee lislaam du teemu dem waaye bu yonante bi demee lislaam fi lay yem moo tax te lislaam boobu taxawagul ñu ne kon yonante bi ñoom moo leen gënal seen bopp gënal leen moo tax xare bu mas a am saxaaba yi dañuy rayante ba ci yàgg ñu wëlbatiku di xool fi yonante bi nekk mbaa bant xuriwu ko mbaa dara laalu ko nga xam ne ñoom dañ doon njëkkante léegi dégg nga sëñ Tuubaa naa tànn saxul mawta maaxawal kullu minhum sajwa maanaam ñoom dañ doon njëkkante ak dee am na ci benn saxaaba boo xamante nii dafa takk soxna xëy ceetal ko nga xam ne ci genn guddi la fanaanook saxaaba soxnaam bi mu fanaanook moom bi bët setee nga xam ne dafa dégg ñu naan ñëw leen ci jihaad ji ñëw leen ci jihaad ji nee na jotut sangu sax fanaan gi mu fanaan ak soxnam jotut a sangu ji sangu farata nee na noonu rek la tëb daal di daw dem ci jihaad ji nee na bi mu demee ci jihaad ji ca la faatu yonent bi salaa salaam nee na gis naa malaaka yi jël ko di ko sang di ko xeeñal fet xetu parfon goo xam mosuma koo gis te xam ngeen ne ku dee ci jihaad ci toolu yàlla ci jihaad jërut sang dañ lay suul noonu rek kenn du la sang kenn du la jullee yonante bi salaa salaam nee na gis naa malaaka yi di ko teral lool jàpp naa ne googu bëgg de ku ko xooloon ci sa bëgg lislaam ak bëgg yonante bi pour fekkee toll na foofu bëgg nga ko su fekkee tolluwut foofu nag xamal ne saaba yi ñoonu raw te ñoonu raw sax waaye nag seenu tànk nag fu nu ko teg war nañ faa teg ñun ñi nga xam ne de ñooy taalibe sëñ tubaa li nu sëñ tubaa digal na ne saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci lislaam daanañ leen dóor di leen lakk bàyyi leen yonante bi bàyyi leen yonante bi salaa salaam kii dafa yor njabar waaye dóor yeeg lakk yi taxul ñu bàyyi yonante bi am na ci koo xamante ni saxaaba boo xam dañ koo jàpp takk ko ci garab nar koo fital ak jaas yi ñu ne ko ndax sa place bii nga nekk ndax yonante bi salaa salaam ñëw nekk fi nga yow nga mucc lu la ci gënal mu ne leen giñ naa ci màgg yàlla ak sama bakkan yonante bu bëgguma bant xat laal ko bëgguma dara dara lii ngeen ma def man moo ma gënal ngeen def ko yonent bi salaa salaam Bilal ibnu Rabah dañ ko daan dóor di ko lakk di teg ay doj di ko teg ci kaw kawam Bilal di ko wax weddil yonent bi waaye day wax ne ahad ahad ahad ndax bëggum bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi mosu leen a sant dara dara daanaka lu nu gàntu ndax ndigalal yonent bi ñoom lan doon fuglu ñoom seen mbir yëpp ak seen it yëpp lan la yonent bi digle lan la yonent bi tere. gis ngeen ne yonante bi bi muy tere li ko yàlla digal ma koy tere buy noppi rek saxaba yi nee nañ ñoom alxuraan li tax seen ak mokkal ak gawoon a yeex noonu mooy lépp lu leen yàlla digal yonante bi digal leen ko dañ koy jëfe bala noo toppaat ci beneen aaya di ko jàng danoo jàng loola ci yax bi jàng ko maanaam ba jëfe ko soog a jàngaat leneen ndax nee na ñoom digalal yonante bi mooy seen lépp ñooñu nag foofu la seen bëgg yonante bi salaa salaam nekkul wute naag lool nga naa bëgg naa yonente bi sallallahu alayhi ci xeetu tudde naa ko doomam fu ko tuddee sax loolu jullit bu ne da ko war fu ñu tuddee yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ci war a tege waaye du lool rek moo doy du dañ ko war a bind ci téere yi dañ ko war a bind ci table yi sopp nabi sopp nangam déedéet sopp kooku dafa war a am lu koy firndeel mënoo mukk ne damaa sopp yonante bi yor ab bitig bitig sopp nabi di fa jaay lu yonante bi sallallahu alayhi wasallam di mënoo mukk nekk ci palaas wala ab oto wala nangam ne nangam sopp na bi ba noppi foofa nga fay def lu neexul na bi kon loolu day wane ne soppoo ko rek nit ki koo sopp da nga la mu bëgg da ko bëgg la mu bañ it da ko bañ sëñ Tuubaa mi ko bëgg de dafa wax ne axsamtu billahi inni li nabi abadan xillun wahibun wa ma abaahu ya baahu giñ naa ne yonente bi salaa salaam mooy sama soppe mooy sama xarit lu mu bëgg loolu laa bëgg lu mu bañit bañ naa ko daa di wax ne maxat mahabbati al muxtaari sayidina hubbil ma ani wala wax lii dammi wa ahli wa njëkk wax sax maxat mahabbati al muxtaari sayidina hubbil ma ani wal ahli na wal wala awlaadi fi daa wa abdan qadima lahu muskaana li sanada kon léppam léppam kulliyati muxjisa léppam yonante bi salaa la ko jox dégg ngeen bi nu sëñ Abdou di jàngal bëgg gi mbëgg yonante bi salaa salaam nee na da nit dafa dikk indil ko guro mu ne ko loo ci jublu mu ne ko damaa dégg da ngaa bëgg yonante bi salaa salaam da bëgg guro mu ne ko kenn nan ko génne man kenn du ma màndal gaa dara lu du bëgg yàlla ak ab xanaa beneen yoon sax dinañ ñëw ci sëñ Tuubaa ak bëgg gi yonante bi ak ni mu nekk xaadim rasul loolu dinañ ci ñëw waaye jullit bi nga xam ne dafa bëgg yonante bi salaa salaam lépp yonante bi daf koy topp sunna yonante bi daf noo jàngal ba jullit bi amut sañ-sañ wanak sax bu ciy dugg am na lu war a wax buy génn ci wanak war na lu buy tëdd am na lu war a wax kon jullit bi li xamee dëgg ak bëgg yonante moom mooy ki la gën a topp salaatu ala nabi di julli ci yonante bi kooku bëgg na yonante bi ki topp ci roy sunnaam lépp lu yonante bi doon jëfe mu jéem koo xam jéem caa nekk kooku bëgg na yonante bi sallallahu alayhi wa loolu nag ay mandarga yoo xam ne ay signe lay def signe la yu nekk ci xol waaye signe yi nekk ci xol day génn ci jëmm bu génnee ci jëmm cër yi di ko jëfee feek signe yooyu génnut ci jëmm ji génnut ci jëfe yi loolu xamal ne danga ko tuddoo rek waaye bëggoo ko yonante bi sallallahu alayhi mooy ki nga xam ne sunu borom dafa wax ne innama ana rahmatul muxdaatun du lenn lu dul yër wa ma arsalnaaka ilaa rahmatan wa ma arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas yooyu yëpp nga xam ne yàlla def ko indi ngir yërmande kii ku ko bañ sax am na ku ma sa laaj ci saxaba yi ne ko waaye yéen lu tax ngeen bëgg yonante bi mu ne lu tax duñ ko bëgg koo xam ne daa fekkoon ñu réer mu xamal nu koo xam ne daa fekk nu ñàkk mu amal koo xamante ni daa fekkoon ñu gindeeku ñu gëlëm mu gindinu koo xam ne danoo fekkoon ñu dem ci yoonu sawara mu fexe ba indi nu ci yoonu àjjana kooku luy tax duñ ko bëgg yonent bi ku ko bëgg mooy yoonu yoonu ihdina siraatal mustaqim ci nga tege képp ku la gën a bëgg yonent bi moo la gën a tege ci njub ku la bëgg yu gën a bëgg yonent bi it ëllëg yomal xiyaam moo la koy gën a jege waxoon naa nag bëgg gi ba léegi bëgg gi mooy roy sunna si yonent bi salaa salaam saxaaba yi dañ ko daan roy ba yonent bi ni muy lekk sax dañ ko daan lekk dan daan roy yonent bi salaa salaam ba heure yim du yonent bi de bi ko sunu borom nee ko jéggal naa la say bàkkaar moom lam ko faye mooy dafa taxaw di julli ba ay tànkam di metti ñun ñii nag su fekkee bëgg nañ yonante bi lii suñuy mbir mooy ñu roy ko ba jàpp ne yonante bi sallallahu alayhi mu nekk suñu njiit te yonante bi sallallahu alayhi wasallam moom dong lan suñu borom ne nu roy leen ko amul keneen comme nu royloo ëllëg yomal xiyaam ci bu buñ duggee ci bàmmeel bokk na laaj yi ñuy laaj kan moo doonoon seen ab yonante ñu ne yonante bi sala Seydina Aboubacar dafa bëggoon yonante bi sala salaam yonante bi nee na ku gis ku faatu ba noppi di dox xoolal Aboubacar bakar dafa bëggoon yonante bi bu jàkkaarloog moom du mën a wax sax dafa bëggoon yonante bi ba xolam xol bu woyof la yoroon ndax bëgg bëggoon yonante bi am na ku mas a dikk ci ne ko ñun del ansala ne ko ñun naafiq ansala man naafiq laa man ansala ndax man day def bu ma toogee ci yonante bi damay jonjoog malaaka yi di gis arasa kursi yi bu ma nekkee ci marché bi yonante bi ne ko saxoo leen loolu bu ngeen ko saxoo di toog ci sama wet dangeen dem ba lépp day kiraay yépp day mureeku ci yenn kon yonante bi salaa salaam ku ko bëgg moo lay fekk sil boppam moo lay jàppal boppam moo lay toppal boppam moo lay dimbalil boppam ndax sunu boroom nag dafa waxoon ne yonante bi salaa salaam bëgg ko mooy yoon wi gën a gaaw ci yoonu gindeeku bëgg yonante bi nag sunu borom da ko wax ne ko yow bi du caagee ne koo bëgg rek moom mu jub waaye innaka laa tahdi man ahbabta man maay jubal kon mbokk yi lii daal benn fànn la ji bëgg yonante bi salaa salaam yonante bi nag bëgg ko ay xeet yu bare la dëgg la tudde ko doom lu am am solo la tudde ko sa béréb lu am solo la di ko tudd waxtu wu nekk jàpp naa ne benn jullit bu mën a toog ba jant sotti tuddoo yonante bi amul ndax jàpp naa ne dinga julli wala nga jàng alxuraan wala nga def salaatu ala bi wala sikkar te yooyu boo ko defee di nga ko dégg gis ngeen yàlla ni mi ko bëgg ni mu def yonante bi dafa lëkkale aw turam ak turu yonante bi dafa lëkkale aw turam daf ko yéegal sa war a faax naa lakk sikkar ak dafa jël aw turam yéegal ko ak turu yonante saa boo noddee tudd yonante bi mooy liqaam tudd ko loolu nag bëggum ko bëgg a kon ñun waru gar la ci yonante bi ñu bëgg ko ci suñuy màndarga suñu lépp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp Euh, seexu naa moo nekkoon ci caméraman bi ànd ko ak Fallou soxna Awa Ndiaye moo ko doon réalisé ki ko doon monté di soxna Khady Niang ñu jox leen daje ci yeneen i jotaay yal na yàlla jàppandil sunu mbiru àdduna ak sunu mbiru àllaaxira defar ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.